شهدت أن الله رب واحد وليس ينمو

mimman huwa al-khalifa saytu nataal yi ñuy wax ne sëriñ bi la te biñ ko saytoo it mu nuru ko lool euh, fi ñuy tàmbalee nag mooy ndokkeel la ci weer yu nekk mu weeru koor gi nga dimbalu ni ci itam lool ci jotaay bii nga xam ne yaa ko feeñal muy al mashrabu saafi min al manbai shaafi te kenn ku ne ci ñun ñu fay ñëw xam na ne ba mu ci tàmbalee ñëw ak léegi wute nag ba mu ci ba mu ñëw kon loolu mbooloo mépp ak yoon wépp ak jullit ñi bëgg lu baax lépp ñu ngi ñoo ngi la ci sant di ñaan mu yàgg di di topp ci ndokkeel gi mooy jàngukaay bu mag bii nga xam ne ndigalu sëñ bee woon mel na dañ la ko dencaloon mu defal la ci tawfeex it lool li nga ci yéen lépp yàlla na yegg ba nga naal yeneen teggale ko te naan ko yow di la sant ci jiitu gi nga jiitu sunu kanam di nu wan nin war a ànd ak sëriñ bi bokk na ci say wax liggéey bi mooy ilaau kalimatillahi al-ulya bokk na ci itam bu laal suuf bu mu laal suuf nag soññi na sama maas lool kon nopp lu jeex na nelaw jeex na man mi nga xam ne dama bindoo tayel dimbalee nga ma bu nelaw du ma ko def xel mu dal xel dal ma loolu yaa ma ko dimbalee ngir kiinu nu àndal musta noppal musta toog kon wan nga nu ne ginnaaw doona topp ci gannaawam liggéey bii mu fi bàyyi bu urnoo seraan ba mu laal suuf ku yor lu wërta laal suuf nag waxuma ne la waaye jax jeexu sax wër la kon dimbali nga nu bu baax bu bu bu doyee de ba di ko defit duñ ko defe xel mu dal te loolu yaanu ko yaanu ko yaanu ci dimbali jërëjëf yàlla na yàgg loolu Mbàkke léegi nag liggéey bi euh, mi ngi nii def nañ ci ay gëstu yu bari ngir ngir ngir di wóor li di wóor li rek bokk na ci cëslaay yi ñu def ne yi tax ñu ñu jàpp ne mooma waxi Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana mi nga xam ne fekke woon na jotaay ba dafa wax ne wa kaana yowmal itnayn daxwatan ubtudi a fil bina nazala cheikhu fi xufratil qubba te nuru na ko ndax daa mel ne fi mu nekk moo gën a suufe fa la ñële fañ taxaw ci kaw indi ko maanaam ba fële gën a feeñe wala bii sa ginnaaw si waaw waaw ndax daa mel ne daa mel ne ñële ca kaw ñoo ñoo tiim fi mu nekk ci sayir waaw kon mandarga wu na ci nekkoon waaw waaw waaw fee daa mel ne moo gën a kawe fii waaw mu ne waaw daa ne dañoo ne dañoo fa gën a kawe fi ci sayir fi waaw mu teg ci ne wa cheikhu muxtaar binta almadkour bi janibihi wa bi yadihi inaau tiin wa axada cheikhu alat albina almalaj waaw moom la téye noonu wa axada min attiin wa basmal hmm. wa wadaa tuma axada xajaran wa wadaahu ala tiin foofu it am na fu mu feeñewaat defe naa waaye daanaka mën na bii mën na ko yóbbaale ثم أخذ المعول وبسمل وضرب على الحجر ثم تلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ثم تنحى عن محله وصلى ركعتين تنحى عن محله mel na ni kon jóge na fii dem fee wasalla rakaatee ni kon wadaa wadaa da nga mooy mujj ba la xam naa mooy taay la wala wala ñaan daal mooy moo tax ñu mujj ko mooy foto bee ci gannaaw loolu loolu la daaneel wax ji ànd ak loolu nag teewut def defoon nañ ci yeneen gëstu yoo xam ne ci taxawaayu ñoom suñu Abdou Aziz mi la tuddee woon seen bopp diwaanul maarif def nañ ci ay ay ay jàngat yu bëree bëri ci méngale melokaan yi li ci moom ak liñ gis ci kaw nataal yi ba mel na ni lépp ànd na kon daal bu fi ne liñ jàpp mooy sëriñ ku baax ku baax kee waaw ñoom ñu taxaw ci taxawaay rafet andi ko doon la doon la jëbal lépp taw euh, tawfeex ji nag mooy li mu dajeeg ngay sëñ Touba tamat ko sëkk waaw kon loolu ca dafa sëñ bi yow ko defal xam naa li ci des ci kon mbokk yi daañu ci ñëw incha allah. ndax ñoo ngi siyaare bu baax ñoo ngi siyaare ngeen nga te di ziar leen ñaanal ngeen yàgg fi te wér ndax seen yàgg fi mooy sunu njariñ it mooy sunu sunu ndimbal. Euh, noo ngi sant bu baax a baax sunu teewaay fii ci seen kanam mel na ne suñu girug dund mu ne su am lu raw lii ngir dab seen mbég tax seen mbég mooy mbégum sëriñ bi te lii kat ni ko sëriñ Chérif waxee daa bokk ci jagle yi nga xam ne sëriñ bi da leen koo jagleel euh, loolu nag di di ndamal lislaam di ndamal yoonu murit di ndamal àdduna day day sofu rek ci ndam yu rëy yi nga xam ne euh, feeñ na di université bu mag bii bi nga xam ne mooy tabax muriti suba julliti suba sénégalais suba yi nga xam ne ñoo war a dimbali jamono di jumay masakal masalikal jumaan ju mag jooju nekk ndakaaru di firndeel seen taxawaay rek ndax booy xool photo bi ci waxtu wi mu amee daa dëppook waxtu wi ndax daa amee woon ci jamonoy guerre première guerre mondiale amee ci jamonoy mbas ñaari mbas sax jamonoy peste ak li tubaab di tudde grippe espagnole sëriñ bi doxi ci doxin wii te ñu ko doon nettali di jàng sëñ Modou Lamine Diop Dagana mu feeñale ko ci yéen loolu nag ak cant la te doxin woow yi kat mel na ne dafa dëppoog doxin wii ndax ci seeni dogal mel na ne ab docteur la ci seen ndimbal boole woon ngeen ma ci kuréel bi nga xam ne mooy saytu mbas mi ci 2020 waaye ni ngeen ci doxe arab di ko tudde sumuut bu doon baati tubaab naan résilience adduna sépp yéemu nañu jumaay Touba musta tëju màggaluk sëriñ Touba ngi jëfe ko mu raw fuuf nañ ko daan defe te it dara xewul loolu ñun docteur yi la njëkk a jaaxal waaye ndax li a taxoon kat yéenay moom donc bu ñu amee tawféex dajeeg moom xanaa li baat wolof di wax naan ëpp ñu yeesuñu te cet jàppuñu ndax jamononte ñoo ngi yéen dimbali ngi ñu ci jariñu nañu ci yëf yi nag wóor na ma làqub sëriñ bi la ak ab dencam euh, xam naa day dugg ci ca baat ak ak ak la ma waxoon yéen rek ca jumaay bantam ja ko waxoon yéen lycée wala commandant ba ba yàqoon jumaa ja bant ya la ko tegu xeer wii dinañ dem ba réewi nasaraan yi ay taalubéy sëriñ tubaa bëgg ko di ko xeeñtu di ko topp ba man ko faggoo lu ëpp la tabaxe jumaay njaareem ci ci netaal bi rek te waaye loolu amul njëkkat ndax sëriñ bi moom amul njëkk waaye seen dimbala ay murit murit jaar nañu fi ay julliti jullit jaar nañu fi waaye tawfeex ji nga nu defal ba ñu daje gi yéen mu feeñale ko nii ma ko feeñale nekkoon ci album Jean Joffre nga xam ne moo doon architecte jumaa ji moom ba muy faatu 1939 la faatu waaye bagages yi ñu koy donnante di ko donnante di ko donnante ba ci jamono ji seen jamono ju neex ji mu dëppoog jamono joojee mu feeñale ko ni ko feeñale bi ko génnee ci internet bi muri di ak seen xër daal di koy daw song mu tiit ndax loolu mosu koo gis moom bam koy jaay ci internet bi 3000 francs ñetti ñetti téeméer juróom benn téeméer la ko doon jaayee bañ ko ci fayee mu ne lii mënta ne daal di génn daw saytuwaat li mu yor jox ko maison de vente maanaam këru njaay gi nga xam ne France moo gën a kawe ñooña booy jël biñ koy jaay bis booba ay téeméeri téeméeri photo waaye photo sëriñ bi dañ jël teg ca kanam mooy ber ko sëriñ bi ber ber bi ko yàlla ber ak fes gi mu fes bis booba mbakke ca buum ga ay naara ci nekkoon ak yeneen i xeet ndax sëñ Tuubaa ñëpp ko bëgg waaye ci seen ndimbal ak seen feex mu dajeek téeméeri at ak juróom ba ñu jëlee portale bi ba noppi dëppoog 11 mars 1918 njaay mi 8 mars la woon murit yëpp nosu àndandoo takkatoo kenn xàmmeewul ak kenn li bëggoon rek mooy mooy jotaay bi sa mbékk rek lañ ci doon sàkku bàyyiwuñ kenn sëriñ sërif jiite ko cim xel ci xalaat ci jëf ci dox ci wax ñu jox ko ceeg sëñ Bas moom it mu nangu ko dimbali ñu ci te jàppaluñu ci sëñ Abdou Lahad Gaynde ma boole ñoo yeneen murit yi nga xam ne xamantewuñu woon ndax ñu xamante sëñ Moussa Mbacke sa mos bi mu ko bi mu déggee ne loolu am na moom demoon na bay bay bay jënd waaye comme murit yee jënd mu ne li ma jël laa jël tab bi ci ñun ñu nekk benn say te boolo ñoom jëwrin Alaaji Mbacke yu fay fédération murit bi nga xam ne ñoo nekk France sa muritu bopp yi takkatoo jëwriñ sëñ Bamba Thiam ñoom sa Dia sëñ kànji Ibrahima ñëpp daal di booloo sëñ Xaadim Guèye li ngeen di xewal sëñ Fàllu Mbakke ma nga woon Lyon dëkk ak waa ji doon naxtaan ak moom di waxtaan ngir mën cee jot Moustapha Sow daal di ciy tabbi Pape Birane Dieng sama rak dëkk lëkkaloog ambassadeur ba ne France alaaji màgget Seye sab taalube mu dox ci doxinu am solo daal di ko yenu ba bis bañ koy indi keroog biir France ca ambasad ba consul yi Sénégal am foofu fépp dañoo ñëw muy bu Marseille bu Lyon bu Bordeaux ak bu Paris ànd ak ambassadeur u Sénégal ba nekk UNESCO ak mbooleem ambassadeur yi nekk France bu Arabie Saoudite bu marok bu Tunisie ministre de la culture ndax xam dayab sëriñ bi biñ ko jotee ba noppi ak ak recteuru jumaay Paris di nit ku baax wax fa wax ju am solo ndax bi mu xoolee photo bi muñ muñum sëriñ mi reem reem ju neex ji dañu fàttali sa sa jos ji Mbàkke yaa neexi ree yéen rekk dimbali jamono nee na ree ji ak muuñ gi mooy leeral jamono mbàkk yàgg leen fi rek sa muritu bopp yaa ngi li nu bëgg rek mooy sakku sa mbég ndax biñ ko jotee dañ koo saytuwaat boole kook euh, euh, jàngkat yu gën a mag ci wàllu woowu ba ñu bind ab rapport ne amul jiixi jaaxa amul sikki sàkk ci seeni paramètres bind nañ ko mu nekk libre bu mag mi ngi ci biir waaw ñu indi ko lépp ngir jébbal si la ko lenn rek lañ ciy sàkku mooy sa meemoon lu bopp la di ci sàkku sa mbég wukuñu wutuñu ci lenn yàlla ngeen fi yàgg te gën a wér bi yëf génnee sur internet sëñ sërif bi koy wax lool Mbàkke moom de mu dafa def diwaan bi nga xam ne ñoo ko doon saytu lépp li ci war a am ak xam-xam bi ak dugalante bi génn bi lépp ñu bind ko ci rapport ci loolu lañ mooy cislaay li nga xam ne ci lañ sikkalu ngeen koo xam boobu ba léegi nag bàyyiwul ci ci ci ci yeeg foto yeeg defar beeg moom daal mbàkk sant nañ ci bu baax a baax a baax a baax waaw waaw jërëjëf ngeen ko sëriñ kon nag jëf ñu sant bu baax a baax a baax a baax a baax alhamdulilah rabbil alamin nii rek la hmm. waaw moom day da ngeen dégg sëriñ bi rek waaw da ngeen ko dégg sëriñ bi moom eh, doy na waar moom day moom day moom dellu sax ñu daa waxee rek sëriñ bi am na boo xam ne dama wax ne soññ soññ na gaay yàlla yëpp man maa ko na gaay yàlla naa ko wax mas moo wax ne sëriñ bi ñiiwul kenn ci borom mas naa ko ci biir loolu itam sëriñ bi ga yi yàlla yëpp jox nañu seen àq ca kaw ba ci suuf eh, damay wax ne sëriñ bi moom laa jëkk a wax ne sëriñ bi xajju boromam la ndax ma ne su ko ñàkk wutul tur te du yonent du malaayka waaye nag xajju boromam xejj nag mën naa xam ba xam nag ngeen gën koo gën xam mooy xejj sëñ bi xejj boromam la moom rek lañ ko mën a tudde xejj nag yéemul fen ndax mel na ne ki ko xejjal yéemelu ko fen ci boppam waaw sëñ bi foofu la nekk ñëwul kenn ci boromam waaye ñu ngi ko seqal ñëpp yi jox nañ si seen àq ba ma sëkk ba ñoom ñëpp yéene nañ ko ci rem boobu man foofu laay xool sëriñ bi foofu laa ko digg itam te muy dëgg ci man kon nag alhamdulilahi rabbi ndokk ak ndokk noonu ñu ne amee tawfeex ju toll ne suñu doom boole nag sëriñ bi foofu la tawfeex mën na yem kon nag ñun sant rek moo nu war alhamdulilahi rabil alamina seen taxawaay ci nan war dañu war a yëgee sëriñ bi eh, feeñal ngeen ko taxawaay mat na ko sëkk jërë ngeen jëf eh, sëriñ bi dinaa di wax itam nag eh, faw mu feeñ faw mu feeñ ci adduna bi xaw ma nu mu feeñee waaye xaw ma feeñ mënut a ñàkk lu xëj lu fi xëj rek ci ci ci xam ne sëriñ bi dana dana feeñ na ci des nag bis ba rek lañ ko xam na mu ko waxee mais ah, am na ay may yoo xam ne bis ba rek lañ ko xam kon nag fa tabaaraka llaah sant nañ sant yàlla bu baax. sant yàlla bu baax yéen ngeen gën a sant yàlla bu baax nag ndax jéego yooyu ngeen doon seqi ak xalaat yooyu ak yitte yooyu daje yooyu ba ci jotaay bi ah lu rëy la lu am solo la lu am solo la lu mën a dundal ruu la kon nag nan nan sant leen tan sant leen yéen ñi nga xam ne yéen ñi nga doon yéen yëngu ci loolu ba ci jotaay bii da ngeen sant bu baax nu nit nu santale leen ànd ko yéen jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf loolu rek lañ ci mën a sànni ci kàddu yoo xam ne lu mel nu kàttan mën ko wax waaye sëriñ bi du koo xam ne mas na ko waxtaan sëriñ bi du koo ne mas na ko fa ko boromam toll fa ko boromam toll ah, néew na ku mu toll fa ko xaw ma ci dara de waaye néew néew na te loolu rek moo ci am solo nag loolu dong nag moo ci am solo moom la xam yàlla rek fi ne mu jox mu mu jox ko ci jox ko la mu ko war jox yëpp lépp desul dara nam ko ko mu jox ko la mu ko war a jox lépp jox ko nam ko ko war a joxe deselul dara boppam lépp jox na ko borom waaw dénk la ko dénk la ko suna nag jox ko suñu sumi kërub xasida gi ñuy gi ñuy defal ñu wut barab boo xam ne dañ ko tàmbalee loolu ñu gën loolu ñu gën di wax mise ak ñu tàmbalee ko ñu fa wut ne dañu koy tàmbalee mise dañu ko tàmbalee mise def ko yi def ko yii ab tàmbale lay doon dana yëngut rek dana yëngut rek ndax na mën koo dund jërëjëf dunde ko nag mooy texe gu béel texe gu béel bu yëngut na ñëpp daal